jërë ngeen jëf mbokk yi seetaan wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontaante ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su mbokk yi ñu ngi fii ci Kër Massar waaye daa mel ni unité bi ñu nekk mooy unité 12 Kër Massar seet si fi champion ndaanaan boo xamante ne barki démb dégg ngeen li nga xamante ne jot naa xew ci làmb ci diggante ak Libidor wala ci diggante ak Ngel Jonn moom moom lañ seet si tey muy kan Grand Mbagnick Grand Mbagnick lañ seet si champion bu mag bi waxtaan ak moom ci làmb waxtaan ak moom ci combat bi nga xamante ni dégg nañ ko te xamatuñu fu mu mujj combat bi dégg nañ ci moom la yàqoo bëgg nañ cee xam lépp waxtaan ak moom ci làmb waxtaan ak moom ci avenir am na ñeneen ñoo xamante ni mu ngi leen di tàllal loxo ba xam ñooñu dinañ ko jël wala déet mu ngi fii ñu fekk ko ci terrain bi muy football sañ Bas jëlal champion bi na muy footballee ma ngay daw. bii nag du bokk ak ba ma daan wax ci làmb ba ngay daw jàpp la déedéet le ballon pour <laughs> le ballon pour Grand Mbagnick qui dribble eh Ba <laughs> ah, Grand Mbagnick paas na la ilaha illallah aywaay ah, grand joueur la nekk Sénégal jooy la jooy ñu numéro 10 ba Sénégal jooy ñu numéro 10 jox na grand ma ñi nga ngay marqué daw la hey mbër nag marqué bu mbër balaa laal bal dañ koy jàpp ci terrain bi di ko daw loo ba mu sonn contrôlé ba ay ay ca mbër ay paas na de paasaat na delloo nañ ko baax na baax na ci ci mbër si baax na baax na ci mbër parce que mbër moom bu fekkee ne day fubal rek mën na ko dimbale ci lu bare bëri xam nga fubal dafa complet boo xoolee lépp lu ñuy wër ci entraînement rek mu ngi ci football te endurance bi muy soxla da koy am ci football bi euh, boo xoolee aussi mën naa ne coffre bi mu soxla dëgg lim xol lim soxla ci xolam da koy mën a am ci football bi parce que day def ay atelier yoo xam ne du ci bàyyi xel daw marqué réculer waat ñu jox la ballon nga pousse avancé waat ci kanam yore woo bal nga jéem a démarqué wu. xam nga action yu ndaw yooyu ngay xeeb noonu dafa am lu bëree bëri lu muy travailler ci yaramam mbër muy fubal doo diis yaay moom sa yaram fu la neex euh, ngay dem lu la neex ngay déplacé woo en même temps aussi euh, mbër buy fubal euh, day bokk ci mbër yi am condition ci làmb nga xamante ni lu mu metti metti metti bu soufflé bu dee deux secondes sax wala trois secondes da ngay gis day nekkaat ci ci ci ci compétition donc lu am solo la daal fubal moom baax na ci mbër. bi. waaw jugaat surtout. yooyu noonu day bokk ci loo xamante ni boo lëggee boo demee ci làmb da am rapidité boobu. mun rëpp sax daw jugaat vite fait. non si si mooy li euh, li ma wax rek rapidité bi da koy am mais souplesse bi aussi da koy am. Hmm. parce que ay athlètes lañ yoo xamante nii des fois seen masse. Euh, da leen di tere ñu liggéey lu bëree bare bare bare parce que dañuy dañuy volumer. ci kaw volume ci suuf. Hmm. donc loolu boo ci boolee euh, di fubal rek day dalay permettre nga moom sa bopp moom sa yaram. Hmm. ba li nga bëgg a def sa yaram yëpp da nga koy mën a def yaram yi du la du la du du la yàqal dara. Hmm. waaw parce que boo xoolee aussi euh, mën naa ne li corde di travailler ci ci ci mbër presque da nga koy gisaale ci fubal bi aussi xam nga mbër mu diis buy corde des fois day moomaale boppam. day moom yaramam ci biir fubal bi aussi mën nga ci am loolu en tout cas sport bu bu bu complet la. Euh, mbër yi bu buñ ci mënee di ci mos aussi baax na baax na ñu ciy mos pour mën a mën a mën a moom seen bopp moom ak natation gis nga euh, di feey nii. Hmm. dafa baax ci mbër. Hmm. waaw dafa baax ci mbër boo xoolee mbër muy feey du toqi mukk ci léewtoo. Hmm. du jàpp mukk aussi di sonn ci jàppante. donc mbër la moo xamante ni aussi day am condition. Euh, yooyu yëpp ay sport la yoo xamante ni baax na ci mbër mbër yi baax na ñu koy def. baax na baax na ci ci mbër. waa si baax na baax na ci mbër parce que mbër moom bu fekkee ne day fubal rek mën na ko dimbale ci lu bëree bëri xam nga fubal dafa complet boo xoolee lépp lu ñuy wër ci entraînement rek mu ngi ci fubal te endurance bi muy soxla da koy am ci fubal bi euh, boo xoolee aussi mën naa ne coffre bi mu soxla dëgg li mu lim soxla ci xolam. da koy mën a am ci football bi parce que day def ay atelier yoo xam ne du ci bàyyi xel daw marqué réculer waat ñu jox la ballon nga pousse avancé waat ci kanam yore woo bal nga jéem a démarqué wu. xam nga action yu ndaw yooyu ngay xeeb noonu dafa am lu bëree bëri lu muy travailler ci yaramam mbër muy football doo diis yaay moom sa yaram fu la neex euh, ngay dem lu la neex ngay déplacé woo en même temps aussi euh, mbër buy football euh, day bokk ci mbër yi am condition. ci làmb nga xamante ni lu mu metti metti bu soufflé bu dee deux secondes sax wala trois secondes dangay gis day nekkaat ci ci ci ci compétition donc lu am solo la daal football moom baax na ci mbër. dóorante épaule bi. waaw jugaat surtout. yooyu noonu day bokk ci loo xamante ni boo lëggee boo demee ci làmb da am rapidité boobu. mun ngaa rëpp sax ndaw jugaat vite fait. non si si mooy li su euh, li ma wax rek rapidité bi da koy am mais souplesse bi aussi da koy am. Hmm. parce que ay athlètes lañ yoo xamante nii des fois seen masse. Euh, da leen di tere ñu liggéey lu bare bare bare bare parce que dañuy dañuy volumer. ci kaw volume ci suuf. Mm. donc loolu boo ci boolee euh, di fubal rek day da lay permettre nga moom sa bopp moom sa yaram. Mm. ba li nga bëgg a def sa yaram yëpp da nga koy mën a def yaram yi du la du la du la du la yàqal dara. Mm. waaw parce que boo xoolee aussi euh, mën naa ne li corde di travailler ci ci ci mbër presque da nga koy gisaale ci fubal bi aussi xam nga mbër mu diis buy corde des fois day moomaale boppam. day moom yaramam ci biir fubal bi aussi mën nga ci am loolu en tout cas sport bu bu bu complet la. Euh, mbër yi buñ ci mënee di ci mos aussi baax na baax na ñu ciy mos pour mën a mën a mën a moom seen bopp moom ak natation gis nga euh, di feey nii. Hmm. dafa baax ci mbër. Hmm. waaw dafa baax ci mbër boo xoolee mbër muy feey du toqi mukk ci léewtoo hmm. du jàpp mukk aussi di sonn ci jàppante. donc mbër la moo xamante ni aussi day am condition. Euh, yooyu yëpp ay sport la yoo xamante ni baax na ci mbër mbër yi baax na ñu koy def. l'espère l'international sëñ bas xale la boo xamante ni macha allah bàyyi leen ko xel <laughs> tey waxuma benn mbër sëñ bas laay waxal borom wasaare macha allah xam-xam bi sel na yal na la yàlla defal gudd fan ak wér moom bas Bassirou borom mbeg mi taar mi. ñu bari na dañ may woo naan ma sëñ Jili ma ne ko waaw ñu ma sa waa ji sëñ Bass saa yu xëyee rek revue de saraax ci xew xew làmb lay wax. nee na saraax nag ci biir kër lañ koy def sëñ Bas kañ la daan saraax ci biir néeg bi ah soxna si takkal ko ah yaa ma gën a xam. <laughs> dañ maa yéene ak salaam rek dañ maa yéene jàmm ak salaam rek xam nga ku la yéene soxna moom yéene na la avancement. Ah, ah, gars yi ma ko wax de sama internet waaw dañ maa yéene avancement rek soxna moom ku la ko ñaanal ku ne rek ñaanal na la jàmm ak salaam ñaanal na la avancement yàlla ko yàlla mottali rek ñun ñëpp ñoomi ami soxna soxna yi gën ci ñun nag. kon baax na grand mañi ga ngi noonu xool leen ko ci match bi ñu dem ñëw. sama nijaay mooy lan sa nijaay la. Hmm? waxalal sa nijaay. waaw maa ngi koy gërëm di koy sant di koy ñaanal rek lu mu bëgg yàlla na yàlla defar. di ko ñaanal rek si combat bi mu jëm yàlla may ko ndam si bàkki Sëñ Tuuba. ndeysaan. waaw. jarbaat da ñaanal na nijaayam. salal la. sama xarit. la. ndeysaan. nu mu mel da dóor rek xam naa. Eh, sama xarit la de. Hmm. moo tax saa ñu ko gisee rek daw ñëw ci wetam. Hmm. noo tudd. Baro. Baro dégg nga xale yi de moom wax dëgg xale moomin la xamul dara kum ne sama xarit la rek xaritam nga mbokk yi noonu lañ leen di nuyoo macha allah ñu dajal sampion bi lañ dalal tey ñi naan Grand Mbagnick ñii naan Calme Ndour ban laa ci war a wax. man boo si wax rek baax na waaw boo si wax rek boo waxee Calme Ndour dinaa la wuyu boo nee Grand Mbagnick dinaa la wuyu. maa lay siyaar. waaw maa lay fay jili di nuyu gars yëpp sama gars yi waa Kalso bi yëpp di nuyu waa Kër Massar di waa unité 12 yëpp waaw di si njëkke nag di jaale waa suñu tari daayira bi si Seexal Xalifa di ko ñaan yàlla xare ko àjjana di nuyu mbokk xaadir yëpp. waa Kër Cheikh na Saad bi yëpp maa leen di jaale suñu sëriñ boobu xama metti nañu trop mais mbiru yàlla kenn mënul xëccoo moom. waaw di si nuyu sama papa di ñaanal sama yaay yàlla na ko yàlla xare ajjana di nuyu sama rakk yi yëpp ñoom Jules ñoom ma bàyyi ma kenn suñu waa kër yëpp maa leen nuyu. ñoom Kaamu Seynabou maa ngi nuyu ñëpp daal nuyu waa Kër Massar aussi parce que dañoo sonn si man gis nga ñii yëpp xam nga gars yi sa ñëwuñu mais ñii dañ maa bëggal seen bopp. même bu ñuy bu ñuy football nii sax dañuy ñëw woo ma pour may def samay yëfu comédien si ñoom comprendre nga lii rek xam dafa neex quoi parce que koñ boo fi nekkee ay xale yu njëkk xale yi ñoo ma njëkk a bëgg. xama rek mag yi ñëw xama mel ni ñoo xam ne man fii laa juddoo fii laa yoro te xama rek gan laa fi te yaatal nañ ma defal nañ ma yëpp lépp lu ma bëgg su ma amoon combat di nga ñëw fi nga door a xam ne sax waa koñ bi niñ ma jàppee waaw. ak waa dibiteri aussi ñoom Seyer ma kenn daal ñoom Seyer ñoom Seydou xam nga ñoom moo liggéey yëpp dañuy jàpp si affaire yi bu baax waa Daaru Misel waaw. sa yoo xëyee ngoon gi yaa ngi fii ci terrain bi ci calcio bi ci ak sa gaay waaw su ma demul écrit ba wala ma demul géej rek fii laay ñëw surtout lundi lundi moom fii laay ñëw wala vend ak vendredi yooyu. waaw mais yenn jours yi damay dem Maaro wala ma dem écrit ba waaw. kon kañ nga dugg ci làmb. man 2013 laa commencé bëre. bëri dóor wala bëri simple. bëri simple. Hmm. waaw deux mille deux mille deux mille seize laa commencé bëri arène. Hmm. waaw am si huit combats huit victoires. arène waaw. huit combats huit victoires 2016. 2016 waaw 2016 laa dugg si arène bi waaw. Hmm. waaw même mbapat moom 2013 laa si commencé. waaw parce que dama doon jàng ba 2015 ma bàyyi jàng en classe de quatrième. waaw waaw waaw. kon moment diggante 2016 ba bi ñu dugg mooy cinq waaw mooy sama cinq ans si arène waaw. kan nga daan. man ñu ma daan bëri nañ daan naa ball doole daan euh, Brise de daan Jordan. daan Brise de euh, waaw euh, daan Salbaax Fadam 2 Njaaytin Maxi Crési Pape Yekini hmm. waaw. Pape Yekini nga mujjee daan stade Jom Iba Mar Diop. moom laa daan le 31 juillet. waaw combat bu métti waaw combat bu métti métti woon na trop mais xam nga rek combat moom noonu loolu laa jëloon décision pour jëlu moon décision pour xeex ak moom sax parce que li ma waxoon ak moom signature bi euh, champion la nag xam maa ngi koy nuyu au passage di ko ñaanal bu amatee combat yàlla may ko ndam champion la mais li ma ko waxoon signature bi loolu laa def si combat bi nee naa ko man sama loxo du dal si yow. parce que man damay ñëw rek wóone sama mën a bëree parce que damaa ñëw su maag euh, Maxi Crési dóor ko mu daanu gars yi naan. man mënuma bëre damay xeex kese ma ne ko kon combat bi laa lay woon man lu ma la mënee bëre sama mën a bëre fii laa koy woone si laa ñëw jàpp ko bëreloo ko ba mu kii ma daan ko waaw. Pape Yékini moom depuis seen combat ba tey gisaatuma ko fenn ci dëkk bi xaw ma ba xam daa bàyyam déet ndax gisatuma ko fenn ci làmb sax. non bàyyul sax parce que maa ngi woon dégg combat sax. maa ngi woon dégg combat xaw ma nag nu mu mujjee quoi mais mu ngi fi mu ngi internet moom fii la dëkk sax. Hmm. Euh, yëmbal la dëkk xaw ma buun. Hmm. waaw. côté boobu la waaw boobu la di ko waaw. Euh, diggante daaw ak ren ñu ngi dégg sa combat ci saison bi bi mu ubbee mën nga ñu confirmer sa combat boobu ak ban lënt-lënt la am ba combat bi dem ba ci digg bi ñu jékki-jékki ni dégg ni amul ak promoteur bi lim ci wax yëpp. Hmm. non combat bi moom euh, amoon na. Hmm. waaw amoon na ñu nag promoteur bi waxante woon nañ li ñu waxante ba pare mais bu ñu demee ba suñuy mbokk ñu toog ak suñuy mbokk ñu xamal nañ kooku parce que Euh, dégg naa si ay interview am sax man du ko xas muy wax lu ne mu ne moom daan na ma daan na man fii laa ko jàpp Adrien Senghor def ko nu ma neex jàppee ko fooyee ko. parce que ñii seetaan xamuñu ki ngel jon buñ ma doon jox. daaw rek laa ko jàpp Adrien Senghor fii quart de finale billaahi wallahi taala télé laay wax jàpp ko def ko nu ma neex daane ko nu ma neex te dégg si ay interview am muy naan ay man maa dem seen dëkk jël fa drapeau jël fa tournoi jël fa ñetti nag laan euh, korité ba dellusiwaat ma delluwaat foofu maa moom ñu finaalu ñu demaat foofu ñu ne mu naan ay moom si xol ngembu naa ba dugg si làmb ji ñoom ñu andi ko ñu wooyi ko ne ko am na ku ñëw si kër si si làmb ji benn gan moo jëloon làmb ji te dafa ñëwaat wi te boobu man la mu dem mu dem ngembu ji waa dëkk bi ngembu ji ko ñëw soo xam rek làmb mbër boo xamante ne pare waate woo mu dem ñoom ñu pré préparé ma ba pare mu ñëw bëri si maak moom ñu daje comprendre te jël ba sa leerul xam nga bëre ak mbër boo xamante ne mbëru dëkk la xam nga ñu bëre jël boo xamante ne ay mbër jël bu kenn xamul ñu jox ko victoire ma ñib si lañ ñëw dakaar yi ma jàpp ko daane ko nu ma neex waaw te dégg naa si ay interview am muy wax lu ne kooku maa moom xamante nañ bu baax billaahi wallaahi taala kooku maa moom bu ñu bëre woon arène billaahi lamb day dekkiwaat te man maa la wax lii te man xam naa lu tax man su woon ay man am na nombre de combats mu ma am sax man dina ko may chance bu moom mais comme sax nu muy commencé wax nii sax bàyyi ma bàyyi ko si biir mu rampé waat waaw. ñaata combats nga bëre six combats nga def. non non huit combats laa bëre. huit combats huit victoire. waaw moom mu ñaata combats. moom combats la bëre Dakar fii moom douze combats la am. mais si biir douze combats yi trois combats la bëre fii Dakar comme yenn combats yëpp njaareem la koy bëreel ay Jurbel yooyu ay côté Ngunjaan seen dëkk yooyu. fa la ko bëreel xamoo leen kon. non xaw man dama. billaahi yàlla xam na xaw ma suñu mooy bëreel. cartouche la mujjee bëreel. cartouche la waaye cartouche da daa mën a daan kii. cartouche daa mën a waaye na ma na ma baal sax mais moom ah kooku ko xam li ah. mu bëree cartouche daan cartouche. nee na seen combat ñu dem yow yaa ko laaj moom ci li mu wax. nee na nee yow yaa ko laaj. déggoo li ma la Nguel Dione mosuma toog si interview laaj déggoo nu muy xëree si combat bi xanaa di koo soxla man bëgguma ko. yaa may dégg moo topp Assane Ndiaye di ko naan Calme Ndour laa bëgg a bëre ba Assane mun na taxaw si plateau yi naan maa ko soxla yow nit ka nga raw di ko daan mbapat lu ma ko soxla su noonu moo ma daan si mbapat sax moo mujjee daan dinaa toog di naan jox leen ma Nguel Dione comprendre nga kuy maa ko mujjee daan lu ma ko soxla moo topp di naan ay jox ma ko di daw man keroog daje nañ aji ren lu ne xamal kooku moo soxla ko man soxla yow gis nga ma ñëwoon nga n'est-ce pas fi ma toog bougé wu ma sax su desoon man kese du ma dugg si géew wi parce que man ku tëgg làmb ji xam naa ko duut ñaan man bi ma ko njëkkoon a dugg bi ma ko njëkkoon lu mu lu mu am si accès bu mu am si digg géew bi su ma ko amoon billaahi wala làmb ji tas accès bu mu am si digg géew bi su ma ko amoon làmb ji tas billaahi walaay parce que moom dugg na ba si digg géew bi di def lu ne di xattaraayu di baaku te ga duudu ñëw ba ci moom sax di ko calmer waaw non xam xam nga xam nga moment boobu moom dugg na ba si digg géew bi. muy def la loolu su ma ko am xam man ñii ñoo ma téye woon billahi ak dul ñaan ne ma ngir yàlla ak yónent bi bul dugg te gis nga ñu ma daroon yëpp su ma duggoon làmb ji tas te billahi wala lool moo tax dugg ma kooku maa ko ëpp coow ëpp ko mboolo fuuf Adrien Senghor ak si arène bi yëpp. nee na moo la ëpp doole te boo boo gëmoon li muy wax nga jël avance bi te nee parce que moom da wax ni yéen ñaar ay mbokk ngeen du ngeen bëri mais comme yow yaa ko laaj bu la jàppee nga xam ne lépp dëgg la looloo tax nga daw. delloo avance boo coupé bu ñu paree interview bi naa la envoyé suñu video bi adressé nga xool foofu fu doolee nekk man maa koy jaay doole daanee ko nu ma neex. vidéo bi da koy jox sañ Bas mu dugal ko wasaare àdduna gépp gis ko. naa la ko envoyé nga dugal ko si kii bi sa émission bi. Hmm. waaw. léegi fi mu toll nii. ginnaaw moom nee nga ngel jonn doo doo doo laaleeg moom parce que defagul li nga fi def. gannaaw bañoo bëreeg moom sax waaye da ngaa bëgg mu bëre ba ci kanam mu ñëw bu leen làmb boolee ngeen bëre bu dul moom kan nga gis ni yéen ñaar làmb ju neex la. man sama adversaire bari nañ si làmb ji. Mm. Euh, sama génération yëpp ak nekk si ñoom Mama Lamine Mama double moteur amul combat na ma jël. déggoo li ma la de bul ne si bu double moteur Mama Lamine ah. Mama Lamine mi nga xam ne démb <laughs> Abdoulaye Ndiaye nee na ma bu d'accord léegi ma jox ko combat boo xamante ni combat soog la. combat soog la weesuwul yow. moom maam Mama Lamine Kalmundoor ñoo war a dekkal làmb man maa la wax lii tey maak moom ñoo war a dekkil làmb. te li ma la wax ni balaa nga koy weedi ñu tegoon sama combat maam loolu événement la si ndax Sénégal. mu def Bour Sine barki maa ko gën doon xale ëpp ko doole ñaari yoon ndaama la dama koy téye muy lang. Mama ko sut fuuf fuuf laa lay wax maako ko sut fuuf ëpp ko doole. billaay walaay. ah grand la Mama Lamine la ci làmb. Mama Lamine boo ko yóbbuloon avance su calme doon mu ne duma ko jël xam nga lu ma fu mu koy weer ay na bërewaat maa ko raw Mama Lamine ñaata combat am Mama Lamine amul sa dix combat amul sa dix combat ñu mu bëre rek ñoo am kii nii rek mais Mama Lamine bu mu bëree ak Boursine sax moo ko xaw a lancé nii sax mais Mama si saako yi la nekkoon waaw. Ah. Ah, mais gis nga keroog ni mu def euh, nu keneen ki Jokkel ni mu ko def stade Jom Iba Mar. waaw moom bu Jokkel mbër la sampion la mais Jokkel tax Jokkel bu ñu xamoon bu njëkk ak Jokkel bi taxul ñu naan combat moom Mama Lamine kii la. deral bi la comprendre Jokal daa fekk mu nekk si fin de carrière Maama Lamine bugg a bëgg tur rek jël comme xam nga mbër yi dañuy tàmm benn affaire boo buggee tur rek nga jël mboru ancien comme koo xam ne am na tur nga jël ko pour daan ko mais ñun xale yi ñun ñoo war a dekki làmb billaay wallaay ñun xale yi ñoo ñoo war a dekki Maama Lamine Kewel double moteur Mor Dia Kalmundoor ñooñu boo ku ko tegoon kalaaf rek événement la. Maama Lamine sampion la ci làmb. Maama Lamine double moteur Mor Dia yaa may Kalmu Ndour. daa am na combat tax diggante ma caatu Boy mbara taxaw na. ñooñu yëpp moo caat sa du komba caat da ko raw ñoom nañ gëstu ñu mu war a bëri nañu bëreeg ñoom mais bu ñu nekk bi dina ay caat nu mu bëreeg caat caata ko mën fuuf. léegi yow promoteur bi lu mu la jot wax parce que promoteur bi maa ngi dégg ci ci ay wax mu ne jox na la avance te avance bi du ko delloo si boo ko jëlee. boo delloo avance bi jëlaat beneen combat di ngeen dem ci yoon loo loo wax ci lool non loolu yëpp ay waxam la woon da doon wax rek da doon wax noonu rek pour pour mën nañoo tey rek mais loolu wax nañ ko ba mu jeex. waaw mbiru affaire promoteur bi sax bëgguma ko wax parce que mooy naan moom mooy wutal adversaire daal mu ñu maak moom maak Nguel Dione ku nekk daal mu ngi koy wutal adversaire waaw. kon da leen séparé kii mu jël waaw dañuy waa kii jël gauche kii jël droit. waaye ngeen jonn nga bëgg a bëreel non non bëgg moom man bon li ma ko wax Mama mu jox Mama Lamine wala double moteur. waa wala Boursine bu bëree keroog wala euh, kii Homo Sène Junior ku si pare rek man pare naa. Homo <laughs> Sène Junior rek euh, boo gisee dóor yi bu dóor Boursine bëgg. loolu laa bëgg combat boo xam ne dañuy naan kii day rey Kalmu Ndour loolu laa bëgg rek. ñii loolu la ñu namm nii billaay wolaay man combat boobu man soxlawuma combat boobu damay simee ko ñu naan kii moo ko mën ay combat bi ma daloon maa dem ba stade sa découragé kii xam ne dama koy rey fii mu dee benn yoon. billaa walaay man bëgguma yooyu ma bëgg combat boo xam ne dañuy simee ko ñu naan kii day rey kalmundo loolu laa bëgg. est-ce boo bëggee nangu Eumeu Sène junior wala nga nangu double moteur bëgg a bañ ngel jonn loolu loolu est-ce que que yoonu làmb la. ñii xamuñu ngel jonn yàlla xam na loolu. ñii xamuñu ko ngel jon kuy suivre bëre simple moo ko mën a xam ñii xamuñu ko kenn amul ko ko xam fii man moo xam naa ko parce que dañuy daje si mbapat bi mais ñii ñii ñii kenn xamu ko si. waaw ngel jon <laughs> yow xamoo ko yow bu am xam ko xamee Adrien Senghor nga ko xamee yow combat moo cartouche nga seetaan combat boobu kese nga seetaan mais ñii sax kenn amul ko ko si xam kon comme bu ñu bëree woon tey tey damay tooñ ñi ma jëloon avance bi damay tooñ ñi voilà. ndeysaan léegi fi mu toll nii ci làmb ñooñu noonu nga nga dégtal est-ce que jàpp nañ ni balaa saison bee tëj incha allah dinañ dégg sa combat. déggoole li ma la man pare naa dama pare nii ba pare billaay walaay ñoom ñaar ñoom ñi ma la kontel ñëpp kuñ ma si joxoon avance tey tey tey ñama suba ngay bëre ji ma dem jël ko billaay walaay pare naa fépp. waaw man damaa namm combat. am na benn femme ñoom billaahi wala li ma lay wax nii de euh, si combat dama lay jox benn kii rek si combat Tafaleer hmm, Tafaleer fils de Balla maa bëre spécial bi te li ma diw stade ñooñu andi ko. mooy arène nationale arène nationale damaa daan ba pare sama supporteur yi génn da mel ni sa grand combat dafa bëree ba pare sama combat maag ba euh, Pape Yekini li ma diw stade Pape Yekini andiw ko. billaahi wala ñooñu ma la kontale ku ma si dàkk andi mbooloo amul amul te ku ma si dàkk jaay billet amul man mosuma dese billet si combat mosul mosul am promoteur mosuma topp ne sama billet yi ni ak nii balaa combat bi ma jaay sama si bloc yi yëpp si par six laay jël sama combat bi passé si bolok ba dem ba stade jëlaat benn xaaj billaahi walaay mais jàpp nga ni fi mu toll nii promoteur bi adversaire bi muy waxal actuellement ni ci làmb sori na loolu seen combat yi ñaar dina taxaw. waaw ñu ngi ñu ngi si de parce que tey rek ñu ngi mujjee déggante mu ne ma maa ngi si yow affaire yooyu ma ne ko ah man gars yi daal dañ may yaakamte combat affaire yooyu mu ne ma daal bul yaakamte dara fii balaa le dina dinaa taxawal sa combat ma ne ko waa baax na incha allah. le yàggatul la 15 février. yàggatul waaw yàggatul moom yàggatul lool la ma mujjee wax daal. Ah. mais kon dàq nga daal sa copain moom du ngeen bëree. Euh, maam maam moom na rampé waat ba si kanam quoi na rampé waat ba si kanam rek waaw. Euh, ñu lay jaajëfal ñu ñëw fii fekk la fi yow ak say xarit say am di jàmm rawatina sa mafia bi xam nga mafia nu mu tudd. yéen a ma gën a xam sa mafia bi. ñu ñëw mooy ñii kii surtout ma kii moom kii moom daf ma bëggal boppam xam nga man nuyu yaayam ak papam yëpp parce que yóbbu na ma ba këram tey ma jëlee ma suñu kër yóbbu ma ba gaalem xam présenté ma bi papa moom laa doon nuyu foofu sànq ak yaayam yëpp. famille yëpp xam naa leen kii moom sama jarbaat la booy yëpp si koñ bi lañ dëkk mais gars yëpp ñi yëpp affaire bi yëpp ñii lañ. parce que bu leen neexoon tamit bu ma leen waxee lii premier jour ba ñu dem ak ah, mbër day fen ñëw mais dama leen wax ne waa ji nee na ko dafa xaw a occupé lundi mais gis nga ñoom ñu dañoo bàyyi seen yiite ñoom grand buuba xam nga mooy suñu grand fii xam nga daa bàyyi yëpp yiite mi yëpp ñëw mu teewal affaire yi mooy loolu waaw ñoom Ibou Sow ñoom Ndiaw xam nga ñoom buuba waaw gars yëpp daal bari nañ fi daal waaw dañoo sàcc samay 2000 nag. keroog waaw gaaw gi gars yi yëpp. dañ maa bës sàcc sama xaalisu mbër. billaay wallaay ñu ngi nii xamoo kan la oh, def góor ko wasaare. sawaay moo ma daaneel kii ñëw yéeg sama kaw sawaay dugal loxo bi si poos yi ak ak no keneen Babacar xaw ma kan la sax xaalis bi fu mu def yow kii mën na laa daan kii daal non non eh, féete si ginnaaw waaw ñoom ñaar dañ ma sot nangu samay 2000 def mu lépp ñu ngi nii sa waay a ngi na la di football ñoo nangu sama 2000 bi ah. waaw ñoom ñëpp ñoo ngi nii waaw mooy jour bi buñ la xaar fii ñoo ma ñoo sàcc sama. leen ko deux mille mooy xaw ma kan moo ko ci jël na ko delloo. ay sàcc moom ku ko jël <laughs> boo ko fay fayul rat fay ku ko déwén. billaay ah bàyyi leen non dinañ ma ko jox incha allah waaw su ma amee combat bu ñu mobiliser rek mooy fay nañ ma ko. incha allah parce que borom baax la ñu xam nga waaw avant tout d' rek maa ngi leen di nuyu aussi xam nga di leen ñaanal tamit xam nga mbool mboolo boolo bi ñu yàlla boole nii yàlla bu si seytaani dugg parce que dañoo yaatu nu ñu mel nii nii di kaf di foor noonu la mel seen biir kër yi waaw amul ku si ñëw fii di tirise dund affaire yooyu nu ñu mel rek ku nekk boo daje woon ak ñoom si mbedd sax jikko ji la lay woonaat amul koo xam ne ñaari jikko la fi yor affaire yooyu waaw ma leen di nuyu di leen ñaanal tamit di nuyu sama copain bi Sall sama xarit la ak ñoom jàmme sama jarbaat bi ak duudu l'espagnol bu nay bi kii moodu moodu bu nay la kii <laughs> kii. yaa ngi tooñ rek bi ñëpp lay tooñ ñëpp lay moodu moodu bu nay la kii. moodu moodu bi ngay di ko partager connexion. maa koy partager kii. tuudu <laughs> normalul jërëjëf mbokk yi loolu la leen di tàggoo gis ngeen champion bi mu ngi noonu bëggoon ñoo xam combat fu mu toll waaye gis nga wax na la nga xamante ne moom moo xew ci làmb ji yëpp wolof na daf na tung ne du teew ñuy natt cekk lépp lu ngeen bëggoon xam wax na ko lépp lu ngeen bëggoon mu wax wax na ko waaye daa ne am na lu mu dese lal la. waaw euh, di gërëm waa Kër Massar aussi di gërëmaat waa Kër parce que du ñoo sonn si man di nuyu suñu waa dëkk waa Mar Fafako waa Mar Lodj Mar Sulu euh, Mar Wanje waa Simal Fimela Diofior waa Baboucar Sambadia Djilor Djijak Yaayem. waaw waa arrondissement Fimela yëpp daal région de Fatick aussi maa ngi nuyu ñoom ñëpp waaw di nuyu sama mag aussi Faly ak ñoom Moussa ñoom El ñoom Ndig Fall xam nga di nuyu Lamine Thior aussi ak sama nijaay tonton Ousmane mu ngi France kooku moom mention spéciale parce que sama combat yëpp mooy ramasse billet yëpp ma koy nuyu bu baax ak euh, ñoom Jibi Ndiaye ñoom Ousmane Thiaré xam nga ñoom Kolinga ma bàyyi ma kenn ak seen i jabar yëpp maa leen nuyu parce que dañuy sonn si man ak mbay sa Mario sama mag bi ak Bira Seyku mu ngi fi sax maa ngi koy nuyu bu baax ñoom Kumba bàyyuma kenn daal suñu famille yëpp ñoom Duudu ñoom Saara ñoom Lang sama rakk bi waaw mu ngi Espagne maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ñoom Jibi kooku moo ma doon toogal ci mikaay mais instant yi mu ngi Espagne Jibi maa ngi koy nuyu bu baax ñoom Maha ñoom Adama Adama moom mi ngi Maroc mais dama koy ñaanal yàlla àggal ko mu dugg Espagne si jàmm parce loolu la bëgg xam maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu sama gars yëpp sama supporter rek sama supporter nekk rek maa ngi nuyu di nuyu sama président fan si club Baba As maa ngi koy nuyu ñoom Aso ñoom Jackson xam nga ñoom euh, Tata Tening ñoom Ndey Njoor ñoom Xuja bàyyi ma kenn daal xam nga dañoo sonn si man parce que sama combat bu xasee taxaw ñoom ñëpp dañuy bàyyi seen yite yëpp ngir man donc combat bii nii amul mobilisation bu ñu si deful di nuyu nag euh, ministre de kii euh, directeur g kii Biram Mboru waaw maa ngi koy nuyu bu baax son et lumière maa ngi koy nuyu bu baax parce que combat bi rek lu muy ñu mu njëkkoon a taxaw nii rek gaaw na ba jaayal jëndal ma si cinq bloc te combat bi ki yewul te xam nga maa ngi koy nuyu bu baax di ko ñaalal tamit xam yàlla lu mu ma defal noonu yàlla mu yomb si moom ak euh, Matar Ba aussi ministre de sports maa ngi koy nuyu sama papa la sama lépp la di nuyu doomam Likki maa ngi koy nuyu bu baax a baax waaw. jërëjëf kon mbokk yi noonu lañ leen di tàggoo ci tàggoo bi nga xamante ni moo du tàqali ko bala incha allah ci beneen xew-xew làmb jaa ngeen jëf. jaayëf barang muy gaaw. nee def la ñuy def la ñuy jàpp fii di ñu bëggoon li ñu def lépp. moo tax ñu ñoo tax ñu manko mag sama gaay yi ñoom Ndiaye yu saw manko defal ko bagage. neex naa nekkal fii. non neex naa nekkal nag parce que borom baax la quoi parce que bu génnee. dañuy mën yitte quoi dañuy ka fooree. ba xam ne borom xol la quoi lenn lañ ko euh, mënal ñaanal ko borom bi lu mu bëgg si arène bi borom bi defal ko te suñ kàddu ci kàddu na yàlla incha allah rabin raar bi raar bi dina ko jël parce que ñun suñu mbër gëm nañ ko lu muy def mën na ko te na nañu bu baax bilaay walaay moo tax moo tax boo amee combat buy génn non sa yaram day daw parce que mbooloo bu koy dar moo tax bu demee day appliqué ngay appliqué borom bi defal ko ndam. Kër Massar gépp dañuy mobiliser lépp ci ginnaaw. non si si ba Kër Massar yëpp muy xale di mag parce que borom baalax ko lépp si la moom fu mu fi ñëwee yàggul mais dafa ñëw yaatu ñu lépp ñuy kaf fooree parce que bu ñëwee rek day ñu wane ne moom suñu si dara day wane ne mbër la moo tax ñun tamit loolu la leen nga amel. jëloo 350 jox ma 350. kii jël bul bul wax dara après man jox nee na jox téeméer bàyyi jox leen téeméer rek. jox ñu téeméer xam nga comme taj ngeen bul ah. wax dara ah dëgg bi moo ngi nii rek. man Ibou Sow laa tudd. ah. nekk grand bañ fii ci koñ bi neex na. non nekk grand bañ moom moo koy wax sax moo daaka neex sax ndax ñetti jàmm ko quoi ndax moom bu mu ñëwee Kër Massar wàcce na boppam ah ni mu ñëwee nii sax. public bi mu am ax yaa ko fi nii ax na yëg bu mu ñu yëg bi rek loolu rek mooy loolu mënuñu koo fay quoi xam nga Kër Massar nu mu toll am na mbëri yoo xam ne mooy loolu lii lii lañ manqué woon ñun ñun lii amuñu ko woon wóor na yàlla ko woon ñu bu nee ba am champion mel ni moom yaa ma gën a xam ñoo wàcce boppam mu càppee ñu comme ay rakam ñu tam ñu càppee ko suñu mbër dañ koy yàlla incha allahu rabbi lu laa ma di laaj dina ñëw fii Kër Massar ah nee na huit combats la def huit victoire loolu du du du loolu kuñ ko wax sax boo ko xoolee sax xam na moom sudu como kanam bi sax yoroo ko fii amul koo fi xool fii ci booyu ba si moom ko fi xool ku fi yor kanamu como amul saa waay la te incha allah rabi Kër Massar li ñuy dégg yeneen fii yëpp nañ koy dégg fii Kër waaw. tur bi naan la. tur bi Ibou Sow waaw. loo wax léegi ci saa waay. non saa moom champion la moom mbër moom amuñu fayam quoi parce que li ñu manqué woon yëpp moo ñu ko indil tey. Hmm. waaw parce que man bu ma demee bay liwaat bëre sax man Modou moo nekkoon sa mbër. Modou Lo dama ni woon Modou Lo lim ma yoreel yëpp fay na ma ko. dam waaw bi mu jëlee roi bi lim ma digoon lépp la ma defal ma ne naa bàyyi. mais moom moo jar lii quoi moom tamit amel na ma sas. waaw roi bi lañ bëggaat incha allah bu si Modou rek. waaw yaa am ko ne keneen ku mu ko joxaat moom mu récupéré ko. dafa leer bu dee bu dee yoonu Modou koy faral. moom laay faral <laughs> <laughs> dégg nga dégg nga nee na Modou booy bi war nga ko dóor ba gaañ ko daa boo dajee Modou Lo koy faral bu leen xamul ba léegi-léegi naa ma Modou. Modou eh, jaajëf mbokk yi kon ñu ngi leen di tàggu rek ba ëllëg incha allah. jaajëf